asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ngi leen nuyu di leen siyaara di gis nuyoo bi siyaara bi sëriñ Abou Mouhamed xalifa cheikh Mouhamadou Mamoun asima Omar di xalifa cheikh euh, Alhaji Ibrahim Dia waaye ak ki ndégalu Seydou Qadir Dia mi nga xam ne mooy xalifa euh, cheikh Alhaji Serigne Dia ak ustra Alhaji Ibrahima ji yëpp ñu gi leen nuyu di leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay di jël kàddu gi comme ni sëñ As waxee léegi rek ci turu sëñ As Mor Dia nga xam ni ñaanu El Hadj Ndiapp Sow màggalam yàgg nañ ko jàngaloo ay kaamil mu joxal ko daara yi mu ko ànd ak moom kon nga tur sëñ As Mor Dia ak El Hadj Maamar Dia Xaadim Xuraan ak mbooleem mm, euh, famille El Hadj Ndiapp Sow bi yëpp rek sëñ Ousmane a ngi toog sëñ ñu àndal ñëpp toog ni macha allah taala moo xam ne nekk Dakar daara yi nekk Dakar te sëñ Mamor Dia xalifa Mamar Dia di teewe ak di njiitul njàngum alxuraan ma ci bis ba maa ngi woo mboolem seen daara yi ak ahlu quran waaye mën a jàng alxuraanu karim nga jàng ko def ko addi alaaji Ibrahima alaaji Serigne Dia ak alaaji Ndiaye Sow mboole gaay yi baax yëpp daqat wa dakkirhum bi ayaamillah yàlla wax na ni nañuy fàttaliku nit ñi de fàttaliku yonent bi sallam nit ñi ci bisi yàlla yi. bis yàlla yi fàttaliku gaa yi baaxee nag gën a gën a ci am solo alquranu karim ndax mooy benn deg ruux gi nga xam ne ñoom loolu lañ ci am ñoom alaaji ibrahim alaaji sëriñ alaaji njàpp sow mboolem gaa yi baax yëpp dañ am ci bis bi mooy ñaan googu muy jàng alquranu karim kon lu mu gën a bari mu gën ci Cheikh Seydou Mamoun daan wax naan kaay yu bari baax na lool du ñàkk yàlla nangu ci benn te bu yàlla nangoo benn boobu mën naa sowe faj aajo yi mboolem ñi ngi koy yéene ak ñi ngi koy defal kon ñoo ngi woo mboolem seen daara yi ak ahlu quran ki turu sëñ As Mor ja ak alaaji Omar ja xaadim quran ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk alaaji Ibrahima ja tey taxaw bis bi nga xam ne mooy bisu alaaji njàpp saw ci Dakar di woo seen daara yëpp kenn ku nekk loo mën a jàngale nga jàng ci xasaayit ak alquranu karim ak ay salawaat yoo xam ne nga koy def addiye waasila ila ruux ñi nga xam ne ñoom la ñuy bàyyi xel ci bis boobu El Hadj Ibrahima di El Hadj Serigne di El Hadj Ndiab Sow gaa yi baax yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi maa ngi lay nuyu ci turu sunu xalifa Samba Sow mi xalifa Alhaaji Njàpp saw di leen fàttali bis boo xam ne xam naa ne fàttewu leen ko mooy bisub Alhaaji Sëriñ Ja Njàpp Sow di sunu waajur baaxoo defal Alhaaji Sëriñ Ja tombeek fukki fan ak juróom ci rekki gàmm talaata 31 octobre Samba Sow mi ngi ci woo bépp jullit ak bépp mboolem taalibe sàmba lañ ci woo ci bis ba ca Pikine ren nag ñu jël bis bi tudde ko sëriñ Samba Waaj ca Njaareem mi nga xam ne day taalibe Alaaji Serigne Ja toftal fa sëriñ Moo Saar ca Mbos saw di rakk di xarit ci Alaaji Njàpp Sow di ci fàttaliku soxna Njóoba Ndiim ak soxna na koy caam di soxna ci Baye Samba Waaj bis boobu nag ñu ngi ci woo bépp jullit bépp taalibe Samba Sow mi ngi la ci woo mi nga xam ne mooy xalif alaaj njàpp Sow yaa Faatu Sow nekk ci Atlanta mi ngi ci woo képp koo xam ne xaritam walla ngay soppeem di la wax ne bis boobu mi ngi fi bis boobu mooy si mooy bisam bu sañoon képp koo xam ne nekk nga ci Amérique nga wuy si ko fii ci bis bi bis bi nag ñu ngi ñaan ci barkeb alaaji sëriñ yàlla indi ñëpp jàll ci jàmm ak salaam delluwaat ñëpp ci jàmm salaam bis boobu daal ñu ngi ci woo ñëpp bépp julli rek ñu ngi la ci woo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalibe mu ngi leen di nuyu ci turu Baye Samba Wathie di leen siyaare di ñaan yàlla sama borom jotaay bii yàlla na yàgg lool ci barke Sëriñ Tuubaa Baye Samba nee na ngi leen di nuyu Sëriñ Abdu Baye Samba nee na mi ngi yeesalaat ak taalibeem ak njébbalam ci kër gi di sant nag mboolem waa kër gi di ko tàmbalee ci njabootu maam Ibrahima Dia jaar ci njabootu Alaaji Sëriñ Dia ba agsi ci yow yéen mu ngi sant ñëpp te ñaan yàlla sax borom defal leen tawfeexam di sant itam mboolem njabootu bay Alaaji Sow jàpp tàmbalee ko ci Samba ba ki ci mujj nee na ñu ngi leen di sant di leen gërëm di am kontaante donte ni bisum ñaan la ak bisub fàttaliku nee na am na ci mbégte lool ndax tudde gi ko muy lu am solo ci moom nag muy lu mu yëg di loo xam ni defal ngeen ko lu ndax bisub Alaaji Sëriñ Ja képp koo xam ni yaa ngi koy def tudd ko ca nee na loolee lu lu lu doon mbégteem la rawatina nag Alaaji Njàpp mi nga xam ni moo doon wëlëreem di xaritam di mbokkum taalibe muy bokkal kër gi te lépp rafet ba egsi fii ci da dara ñaaw ci lépp ngeen rafetal ko kon nee na su ngeen yëkkatee bis bu toll nii tu dee ko ko nee na loola dana ko dana ko neex lool nee na nag mi ngi woo mbooleem bokkam yi fépp fu waay mën a nekk te bokk ak moom Baye Samb nee na mi ngi lay woo ci bis bii nee bis bii nag benn bis ëppalu ko ci bis yi mu amagul ci àdduna nee na képp koo xam ni mbokkam la mbaa xaritam la mbaa wëlëreem la mbaa ngay am di jàmbam jàmbam mbaa dëkkandoom bay sàmba nee na mi ngi lay woo ndakaaru ci bisub bàyyi àllaaji sow ba ñuy defal àllaaji sëriñ ja di ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal nee képp koo xam ne daal jàpp nga ci bis bi mbaa nga fekk ko ca dana xam ne loo ko waxati rek gëm na loola ñu ngi sant ñëpp nag di leen gërëm nee na li ci tege muy mbooleem njabootu soxna njóoba ndiim ak fu ñu mën a nekk ci réew mi Baye Samba nee na mi ngi leen di woo ci bis ba ndax nee na bi kat biñ ko defee ba noppi it tuddee ko ko dañ leen caa boole di ci ñaana laale soxna njóoba ndiim di ci ñaanalaale soxna nogoy caam itam képp koo xam ne ci nogoy caam nga aju ak foo ci mën a ajoo ak foo mën a nekk ci réew mi Baye Samba nee na mi ngi lay woo ci bis bi di la euh, fàttali bis bi le 30. le 31 euh, octobre ci Ndakaaru nee na képp koo xam ne bokk nga ci ñooñu mu tudd daal nee na mi ngi la ciy séentu te di la ci bàyyi xel loolu la waxoon ni naa ko wax ci kàddoom sant nag ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla sa borom guddal fan yi te barkeel seen i liggéey te gën a dëgëral seen i taxawaay te yeggal leen seen yéene yu baax yëpp jërë ngeen jëf murit jógal na kaw ay way jot na jot nga ndigal sab sang mooxe abono dunya ak bakkan ci ndigal murit jógal nag te way way jot na jot nga ndigal sab sang moo xeex ba not duniya ak bakkan ci ndigal ku am sa xel mbaa nga am sam nopp nag ma dëngal ma kañ boroom diina ak lislaam bu fonk ndigal alhaaji sëriñ ja moo raw góor